li ci bees rek mooy di tey jii ñi nga xamante ni ñoo di euh, policiers yi di les forces de défense de sécurité intervenir nan par contrairement ak démb nga xamante ni euh, euh, bu ñu sukkandikoo ci Alioune li mu wax tey force de défense et de sécurité yi dañoo seetaanoon maanaam intervenir ngir daal di indi jàmm ci euh, situation boobu nga xam ni moom moo amoon démb tey jii nag euh, li ñu fi nemmeeku moo di ñoom intervenir nañ ba ay grenade lacrymogène sax jot na fee jóg ngir daal di euh, tasaare ful yi ci diggante ñi nga xamante ni ñoo di agent maire yi ak ñi xamante ni salaamaaleykum. maaleykum salaam. situation bi nan demee jamono ji. ma ne ñun ay habitants plateau lañu fii lañu juddoo màggee fii yaroo fi di def lu ñu neex ñoom mënuñoo jël oto ñoo fekk si ñu bëgg ci imposer seen loi du fi amee. ñun ay doomu plateau lañu du fi amee fu ñu yam neex encombré suñu koñ yi suñu néew yi bu ñuy génn suñu néew yi bu ñuy génn mënuñoo génn dañuy teg seen bagage bañ nañu suñu néew yi génn dañoo sonn population bi ñooy génn fajal ko seen boppa fu mu yam neex. fi mu toll lan moo amoon seen diggante ak uh, jaaykat yi. ngeen fu neex ñoom ñoo ñu déclaré la guerre dinañ ko defanteex ñoom ba mu saf ñoo mën a jël uh, jël. wut euh, oto ñëw sàkkamtumaat ñun ñu fiy yeewoo dinañ xeex ak ñoom ba mu neex ñun ay titre foncier lañ fi duñ fi ndoxandéem jëluñu oto jëluñu euh, train fii lañ juddoo biir yàq biir plato bii la ñu suñu ndong li fu mu yem neex lu ñu bëgg rek nañ lañ fi dem nii la doxantoo biir plateau 24 heures sur 24 ñun population bi ñoo génn waaw. jërëjëf gis nga mi ngi noonu euh, réaction yi nga xamante ni mu ngi jug euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy agent maire yi euh, fi mu toll nii lan moo amaat ci sont les policiers qui ont tiré devant les agents on n'a rien de faire notre travail les géminons on nous a tiré de lacrymogène pourquoi nous sommes des agents citoyens du plateau. on tire la lacrymogène on doit nous gérer notre garde à vue c'est pas ça on n'est pas d'accord pour sur les gémis là surtout le commandant a dit que il faut tirer pour les agents c'est normal. mais est-ce que dañ def loolu ngir indiwaat jàmm wala dañu. ñun jàmm lañ ñëw dañ ñëw pour liggéey seen Dakar plateau ay doomu gox bi la ñu ay doomu gox amul amul agent amul képp nous sommes les jeunes du plateau on veut gérer notre Dakar plateau. on veut gérer notre Dakar plateau les marchands ambulants nous emmerdent ils ont embouteillé notre notre plateau s'il vous allez-vous-en. Euh, cri du yi nga xamante ni euh, liggéeykatu agent euh, yu Dakar Plateau ñu ngi koy wax par rapport ak la situation ku ci nekk ak na muy waxee ñoom boo déggee li ñu wax mooy ñi nga xamante ni ñoo di takk der dañoo tiire ci seen kaw empêché leen ngir ñu def li nga xamante ni moom mooy seen liggéey donc loolu moom moo tax ñoom ñu bañ. cette TV mi ngi noonu ñuy wax. suñu gox mi ngi noonu euh, ñu yëkkati li nga xamante ni euh, moom moo leen metti par rapport ak euh, situation bi. booy bi nee na. ñun ay 15 man lañ. ñun ay agent municipal lañ du ñu ay bandi du ñu ay agresseur du ñu ay sàcc ñun ci dëkk bi lañ dëkk booy bi bu taxawee ci internet bi ñëpp di ko jël journaliste bi jël ko mu naan ce sont des voyous des vagabonds c'est pas vrai ñun du ñu ay bandi ñun ay agent municipal lañ liggéey moo ñu tax a jóg amuñu wax kenn problème dañuy liggéey yéen sax yéen gis ngeen ko ñu ngi rombaat di dem policiers yi ne ñu dem leen ñu ñuy sànne ay xeer. merci beaucoup ñun nag defuñu lu bon. ñun ay agent lañ sunu liggéey la ñuy def du ñu bandi du ñu agresseur ah voilà kii sama classe la man ancien militaire la am na loo xam ne nag pour ñu jógee fii noonu ci bàyyi suñu tali bi jaral nañu lu nekk ñun nëbbatuwuñu làqatuwuñu li ñuy wax tam ragaluñ ko voilà. ñoom ñooy bañ. tout court. saa yu xëy na ñu ba fekk ba keroog muy jeex. voilà mi ngi noonu euh, kàddu yi nga xamante ni biir ko ko bëgg. waaw non baax na. mi ngi noonu agent yi euh, ñoom euh, di yëkkati seen kàddu par rapport ak la situation di wax ni nga xamante noonu lañ ko gisee waaye tam ñu jàpp ni Euh, li nga xamante ni am na fii ni situation bu euh, euh, xaw a waar la par rapport ak ni nga xamante ni noonu lay doxee parce que jàpp naa ni su continuer nii mën na indi yeneen jalti jalti diggante agent yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy marchand ambulant yi ba tey gis ngeen agent yi ñoom ni ñu jàppee moo di ni ñi nga xamante ni ñoo di way takk der yi dañoo dal di seen kaw xañ leen njër ñu def seen liggéey ni mu waree noonu lañ waxee waaye tam ba tey daal mën ngeen gis ni way takk der ñoo ngi continuer di leen encadrer ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mairie mairie bi ngir ànd ak ñoom yóbbu leen ngir ñu daal di dellu euh, file ci mairie euh, bu Dakar Plateau nii ngeen ma gisee nii maa ngi dëgmal mairie bu Dakar Plateau gis nga euh, camion bii ngeen di gis moom mooy yàpp saa su nekk bu ñu jëlee wala ñu nangu bagage yi nga xamante ni moom la way jaaykat yi di tablier yi di lal gis nga camion boobu moom mooy jël bagage yi ñu ànd ak ñoom topp ci ñii nga xamante ni <clears throat> ñoo di euh, kii ànd ak ñoom voilà gis ngeen situation bi noonu la demee fii ci euh, maire bu Dakar euh, Plateau comme ni ngeen ko gisee dem ba tey ay jàppante ak ay jalti-jalti di am ci diggante jaaykat yi ak way liggéeykat yi fii ci maire bu Dakar Plateau ma fàttali rek tey ci suba maire bi ci boppam Alioune te tenir na benn conférence de presse wax ni moom du arrêté mbir mi fekk ñi nga xamante ni ñoo di autorité étatique yi waxuñu ko lu leer ci mbir mi ni ko mu arrêté wala déet donc nag nee na ndigal lay doxe ak li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg population yi nga xamante ni ñoom ñoo dekk fii donc ñoo ngi fii na ni tembe ci buntu maire bi fekk fi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di ay liggéeykat ci maire bu Dakar Plateau. voilà sëñ bi maa ngi leen di nuyu. waa grand est-ce que mën na ñamaat une petite par rapport ak. oui ça va. ça va maa ngi ziar. yal na yàlla nangul ñu ziar. lan moo amaat ci diggante bi gannaaw bi nga xam ne def ngeen conférence de presse ba pare. waaw xam nga bi ñu defee suñu conférence de presse ba pare euh, dañu jóg le plus normalement du monde parce que tamit commune lañu dañu dénk ay sañ-sañ. les trottoirs pour les piétons la chaussée pour les voitures donc ñu jóg di doxal. suñu liggéey comme ni ñu ko doon defee depuis suivi bi te te ñun plateau plateau amuñu fi frontière parce que plateau lañ ñu dénk donc nos agents son allés sur le terrain pour tamit les parties yi nga xamal ne dañu leen désencombrer ba pare pour que les gens ne reviennent pas conformément au circulaire du ministre de l'Intérieur voilà mais bi ñu ñëwee on désencombré ndànk-ndànk mais bi ñu excès au nord de au point rond-point Sandaga voilà on a vu que ñële nu mu tuddati euh, ambulants yi ils étaient préparés aussi encore dès qu'ils nous ont vus les invectives ont commencé la police oto mi ngi taxaw ils étaient même pas à deux mètres ñu ngi woon foofu parce que fa la ñu fekk police ak yëpp mais ñun bi ñu ñëwee on désencombré voilà et automatiquement ñële commencé sànni xeer. lan moo nekkoon la réaction de la police. waaye la réaction de la police ñun daf ñu jaaxal parce que ñoom gis nañ ni ñële ñooy sànni xeer mais c'est sur les agents qui sont qui ont lancé des lacrymogènes muy lu bizarre lu loo xam ne lu lu ëlëb suñu xel la lu ñu jaaxal la. voilà moi j'étais sur le terrain en tant que rapporteur de la commission hygiène environnement cadre de vie pour gisal sama bopp mais. vraiment lu ñu gis moom c'est déplorable. bi ngeen di ñëw indiwaale leen benn fitna boo xamante ni euh, day euh, ñaawal xelu way takk der ba ñu yaakaar ni peut-être da ngeen di ñëw pour xeex si wala yeneen. non cest xam nga bu ñu buggee xeex xeex kenn du ko def ak loxo neen sawaay xeex doo def loxo neen da ngay wut ay gànnaay parce que démb comme am nañ fa ay blessé tey nii bu fekkoon dañu jóg pour xeex dañuy dem wut dañuy yóbbaale ay gànnaay mais tel n'était pas donc dañu ñi ñi ñii du ay vandal yu ñu jël ci mbedd bi ñii c'est des gosses qui habitent le plateau père et mère de famille responsable de famille donc c'est pas c'est pas des gens qu'on a pris nii dans la rue pour ñuy xeex non non non c'est des agents vous voyez le maire est sorti vous pouvez y aller pour pour recueillir ses ses impressions voilà. merci ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, ñu ngi may signaler que ni euh, le maire Alioune Ndoye moom génn na euh, ci foule bi euh, ngir daal di assister li nga xamante ni moom moo nekk di xew ci fàttali démb wax na ko ci conférence de presse bi nii ak lu manti am moom dina wàcc ci terrain bi ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi euh, nekk ndaxte dafa jàpp ni kon du bàyyi ay doomu jàmbur ñuy wàcc di def di liggéey donc.

bu baax naka mu. soo naka tey. ñu ngi sant alhamdulilah. tey lan mooy indiwaat situation bi situation bi mooy depuis après tabaski ba léegi. kon mairie bi mi ngi nekkoon ci désencombrement donc depuis que ñu nekk ci désencombrement bi ba léegi gis nga li xew depuis démb euh, ambilan yi nga xamante ne ñoo nekk entre Sandaga et Pétavin depuis démb agent municipal yi dañu dem foofu di waxtaan ak ñoom calmement pour wax leen ñu bàyyi tali bi ñu bàyyi trottoir yi. wàcc si kii bi di leen sensibiliser léegi bi ñu doxee ba marché Sandaga si la ñu euh, amila yu dab commencé di ñu sandi ay xeer ci loo xamante ne agent yi dañoo nekkoon ci seen liggéey liggéey boo xamante ne nag defe naa ne liggéey boobu noonu du liggéey monsieur le maire c'est liggéey toute la commune de Dakar Plateau la population de Dakar Plateau moo tax tey boo xoolee tey ñi nga xamante ne mooy agent yi ak la population de Dakar Plateau tey ñëpp ñoo taxaw pour wane ne anarchie bi nga xamante ne moo nekk ci biir commune bi neexu leen moo tax tey boo yëpp a génn ñëpp àndandoo ak agent yi àndandoo xeex lii nii quoi. donc yéen tey da ngeen a demoon pour sensibiliser jaaykat yi. ñun dañoo demoon démb depuis démb. encombrement bi.